elle a fait le buzz mu nekk une déclaration que vous avez faite au niveau de Kaffrine euh, barkaati barki démb ñu gis ci déclaration bi ngay ngay nga mel ni kuy aalu dinaan ragaloo OFNAC ragaloo Cour des comptes et à ce que je à ce que je sache euh, ci rapport yi euh, gisaguma ñu scruter li nga xam ne moom mooy sa gestion à part Euh, ce ce point administratif bi nga xam ne moom moo concerné le rapport euh, de la cour des comptes fait par euh, fait sur le Prodac lan mooy lan moo waral àll boobu est-ce qu'il y aurait anguille sous roche. non pas du tout damay jàpp ni d'abord meeting lañ nekkoon cest dire propos yi aussi meeting lañ nekkoon assemblée générale nit ñi wax et puis dañoo nekk ci contexte bu nga xam ni ku nekk ñu ngi tuumal fu nekk ñu ngi wax militants yi nga waroon leen rassurer parce que. kuy ragal euh, institution de contrôle yooyu te yooyu ñu nga xam ne ci nguuru Macky Sall lañ gën leen lañ gën a renforcer muy cour des comptes euh, ci Macky Sall lañ ko gën a renforcer OFNAC président moo ko créé ex IGE gën ko jox doole muy am ay prérogatives yu nga xam ne amu ko woon bu njëkk yooyu yëpp bu boo koy ragal day fekke am na looy loo loo nënëb ou bien am na looy loo loo ragal mais dem par principe gisuma citoyen bu koy ragal gisuma ku nga xam ne yaa ngi xanaa nag nga sa bopp. ou bien nga def lu nga xam ni sa conscience moom la ko moo tax nga ne moo tax nag ci meeting la ñu nekkoon ci AG la ñu nekkoon ma rassuré suñu militants yoo xam ne dañuy wax fii à réseaux sociaux ku nekk inventé benn affaire ku nekk wax benn affaire il faut nit nekkee responsabilité nga jege woon président de la république à la kulialine bu waxtu yu ñëwee il faut nga tempérer affaire te c' la première grande réunion après les AG d' euh, woon aalu peut être contexte meeting nag booy wax meeting ak wax télé bokkul booy loolu c'est par principe wax nga fi sax bi ma jaaree Prodac pour la première fois ma wax ci parce que mosuma cee nangu wax nekkoon naa président conseil d'administration Prodac parce que man dama respecté procédure parce que bu dul politique man administrateur civil la te xam naa fi ma jaar xam naa fi ma jógee bi ma ñëwee ñu nommé ma en 2018 je crois date bi fàtte naa ko tuuti ñu def ma président du conseil d'orientation Prodac boobu ñu ko créé le président du conseil d'orientation ñu def ma fa ma ñëw ñu créé ma benn bureau bu nekk cité Kër Góor gi Euh, euh, maa li may wax ancien coordonnateur Mamina Mamina Daffé ak le le DAF qui s'appelait en son temps que je connais d'ailleurs Boucar Diouf euh, ñu utal ma benn appartement boo xam ne foofu ma war a nekk samay locaux ci locaux bi ñu def ci équipement bu nga xam ne moom moom lañ prévoir seen budget ma ñëw mbir mi ma war koo créer dara amu fa tey lii mooy seen budget man maa wax ak am administrateur bi may déglu coordonnateur bi ma ne ko man dama bëgg équipe bi mu ah, monsieur le président lii la ñu am ci suñu budget ma ko ma ne ko suñu bëggee def leneen nag mu ne ma ah au président on peut accorder un prêt d'équipement. donc les 10 millions là dont on parle, c'est un prêt d'équipement ma mu ne ma mais boo bindee lettre am nga ku fekkee da nga bëgg sàcc doo jaar ay équipement doo lepp maa ku fekk kuy kuy kuy bëgg a sàcc ou bien ku bëgg a luubal du lepp mu ne ma ah il faut nga def un courrier ma def courrier maa ngi am suma secrétaire mooy indi suma benn chargé de mission bu nga fële amul benn équipement su nit yu ma bëgg a seet si ñu toog waxtaanam amul salon bu nga adéquat ma créé loolu yëpp def sumay réforme su may ta lépp te bi ma fay jógee sax foofu laa ko bàyyi entre temps li ma leen waxoon ci sama engagement bi ma jël mooy retiré leen ko par mois entre temps ma yaakaar danaa fa def un an deux ans defuma fa lu yàgg euh, parce que foofu moom yàgguma fa ñu nemee fa de secours bi may dem directeur cour xam nga man nag ñu bëri ñu ma xam xam nañ ni man enseignant laa de waaye fin du mois kuy xooli salaire am lan lañ ciy def bulletin de salaire mën naa toog banque euh, CBAO ñu ngi may dégg nga baal ma ci publicité boobu pour ma retirer sama bulletin de salaire parce que sama activité moo mel noonu ma dem cour ma toog benn jour coordonnateur Prodac bi ñëw suma bureau ñëw seet si ma suma bureau mu ne ma ah monsieur le DG dama mën a seet si parce que prêt bi nga defoon de am na lu des ma ne ko ah ma fekkoon ne ni nga ma koy dagg mu ne ma waaw ah, parce que en moment dañoo ne woon da nga war a fay directement ma ko ma ko léegi man xam nga fii nii maa ngi doog installé amaguma dara yoruma dara te may xaar fin du mois jotagul léegi may may ma ma waxtaan ak suma banque te aussi banque baa ngi déglu ma def après ma résorbé ko mu ne ma waa d' accord dañ la may une semaine deux semaines ma ñibbi une semaine dix jours après bi affaire bi réglé ma jël suma chauffeur mu may déglu chauffeur boobu tam mu ngi tudd léegi foofu laa ko bàyyi mu tudd Jibril Diallo ma dajale lépp ma montant bi ma am ko ma jël ko ma ne ko yóbbul ma ko coordonnateur Prodac mais mu defal la décharge loolu 2018 la coordonnateur mu ma chauffeur boobu dem yóbbul ko ma ne ko mu defal la décharge ñu dem verser ko mu yóbbul ko coordonnateur bi coordonnateur bi téléphone ma ne ma jot naa ko. mais montant bu ñaata nga def euh, je pense que parce que man 6 mois 7 mois laa fa def après ñu ngi daggoon 3 millions et je n'ai pas le chiffre exact mais la reste yëpp ma jox ko. mu yóbbu mu indil ma bi ma ñëwee eh, affaire yi dem man ma oo ko ma oo moom Boucar Diouf ñoom ñëpp ñu ne ma voilà maintenant c'est bon kon je suis quitte avec ma conscience 2018 loolu 2023 août 2023 ma jot benn courrier te Cour des comptes bi muy dem Prodac dem constater loolu man oowuñu ma xam nga booy contrôler boo demee nga constater ah lii am na da nga war a oo ki ñuy contrôler nga ne ko ah diw de wax nañ lii balaa mais maa ngi koy yëgee loolu maa ngi koy yëg. août 2023 ci rapport provisoire ma bind jël suma lettre au coordonnateur bi mu ne mu waaw waxoon nañu ma ko waaye nee woon naa leen fay nga après il y a eu problème bu ñoom justification mu ne ma oo Boucar Diouf ci boppam daaf bi mu ne waaw moom kay bu ñu ma ooyee sax nee naa leen fay nga mais xam nga loolu mais man le chauffeur ma oo ko papier bi ma je l'ai perdu kon lan lay def moi j'ai dit que j'ai la seule faute que j'ai commise mooy le papier je ne l'ai pas gardé mais yàlla nga may déglu muy suma chauffeur bi muy euh, coordinateur Prodac muy coordinateur Prodac ñu ngi may déglu te yàlla yàlla ngi suñu kanam ñoom ñëpp amul kenn ku mën a ñëw taxaw télé ci rajo ne fay ma ko mais je suis un administrateur totalement comme mais nag le papier 2018 ak 2023 man foogoon naa ni c'est ma sama papier réer ma et comme que papier bi réer na ma c'est ma responsabilité et man comme que je veux dormir tranquille la tête tranquille j'ai dit non comme que papier bi réer ma la seule responsabilité mooy papier et loolu rek cour de comptes bu fekkoonte ni bëggoon nañu leer mooy bu ñu ñëwee di contrôler ñu def ñu en confrontation je n'ai jamais été convoqué jamais mais été informé mais le pré-rapport mais ci pré-rapport. lay servir c'est-à-dire pour que les gens viennent s'expliquer def rapport yaa ngi wër ay éléments booy def ay éléments gis nga élément bu concerné diw nga oo ko bu la tontoo ci loolu ci loolu nga constaté nga ñëw delloo ko mbir mi mais dans tous les cas je considère que euh, man je n'ai aucun reproche à faire à la Cour des mu bind ma ñu bind ma ma tontu. ma ne leen ma ràllalaate leen procédure bi yëpp nu mu demee ba pare na leen comme que nag je n'ai pas passé man maa leen ko wax ma ne leen comme que nag le papier là je perdu je suis de payer et de payer une deuxième fois. parce que la cour des comptes daf la engendre nga fayaat. non non engendre ma man maa jël sama responsabilité boobu ñoom dañ ma ne rek lii lañ gis fële loo ci xalaat ma wax leen li ma xalaat ma ne leen ni le coordonnateur il ne peut pas dire le contraire le directeur administratif le contraire sinon que Dieu comme conscience. mais dans tous les cas comme que nag moi j'ai pas pu vous fournir le papier parce que c'est dans en 2018 j'ai dû le perdre euh, ma fay et j'ai fait deux virements pour le payer ma def leen lettre que j'ai moi-même signée donc pour moi je n'ai absolument rien à me reprocher bu bi pré-rapport bi génnee yow fay nga oui donc dans le rapport définitif ils ne doivent plus faire mention euh, de mais cette affaire là mais loolu c'est leur responsabilité mais en tout cas j'ai euh, et ce qui est le fois de toute façon devant moi j'ai être libre devant le tribunal de Dieu et devant le tribunal de Dieu j'espère qu'on va me rembourser ce que j'ai déjà donné mais euh, rapport nu mu tudd un prêt pour équiper un bureau de l'administration est-ce que foofu tamit y a pas y a oui. pas y a, y a pas un au Prodac de, de, de puiser absolument mais malheureusement oui, mais, mais, quand même des limites budgétaires Et moi, je voulais réaménager carrément ce que je voulais. un équipement de, de moderne. Je l'ai fait. Et en partant, c'est là-bas yaa ngi naan sànq euh, si nguuru président Macky Sall la ñu renforcer ses organes bari na ci sax yoo bo comme lu mel ni nag ci magistère président Macky Sall lañu ko la ñu ko créé euh, à l'époque société civile beeg euh, ñëpp rafetlu nañu ko mais tamit là où le bas est-ce que du lii ñu jël dossier yu bari ñooñ dañuy def seen liggéey ba pare ñu jël dossier yi tee ko ba léegi lañ commencé publier ay dossiers qui datent de deux mille vingt et un bon loolu je peut-être que c'est dans le fonctionnement euh, j'estime que bon on aurait pu quand même le faire à temps bu boobaa sous des responsabilités parce que am en moment après prescription bi lay top parce que bu tàmmul yenn bu amul yenn montant yi mu def temps dans euh, cinq ans après dix ans am prescription donc après day am du am aucun mais c'est ce que je dis man ne moo tax day man ne man ragaluma cour des comptes parce que man li ma def amul kenn ku ma ci a sanctionné amul et il y a aucune sanction qui est qui est prévue pour pour l'ancien président du conseil d'orientation que je suis au contraire moi je considère que c'est un sacrifice que j'ai fait pour servir mon pays et pour servir la pour servir la structure bi ki ma remplacé fu loolu fa fekk bu fekkee après ils n'ont pas changé la la le, le siège du président du